ngi war a tàmbalee wal istinaadu allazi tabtulu bii tey maa ngi nar a jàng jëm ci kuy julli mën a taxaw ba pare mu julli xam ci lu mu wiilu waaw xam nga démb waxoon naa la bu dee da feebar ba mënoo taxaw comme ni ñu ko jàngee woon da taxaw ñàkk wéedu taxaw wéedu toog ñàkk wéedu toog wéedu bii nag moom man ngaa taxaw carrément waaye xëy na yaa tayal sa tayal bopp yow encordé na nga wéedu ko wala nga wéedu ci miir bi léegi loolu lan la ci charia ko wax tey borom téere bi loolu bëgg a commencé yéen sëriñ mi nee naa walis ci naadu wéeru àll si wéeru gi nga xam ne tabtul dala yàq bii ci moom salaatul xaajiri gis nga de julee ki man ala tarki mu bàyyi ko huwa moom wéeru googu àll si mooy wéeru gi nga xam ne yasqutu dana daanu moom borom bi suquuti sa daanaw la mu biidu wala yasqutu dana rot bi suquuti ca rot ak la biidu waaye wayin bu nekkee laa yasqutu du rot wala nga ne du daanu bi suquuti sa daanaw la mu wiidu wala nga ne sa rot la mu wiidu foofu moom wiidu googu makkurun da gaasib loola leer na mu ne wa amaan naafilatun daal naafila moom fa yejuusu dana daganil xaadiri ñeel kiman alal xiyaam ci taxaw ani salliha mu julli ko jaalisan ji toog waaye nag wu ñeel na ko nisfu ajri qaayimin genn wàllu fayu ci taxaw ba tey waye juusu dana dagan an yeddu xulaa mu dugg sa naafile ga jaalisan ji toog waye qumu mu jóg baada zaalika gannaaw bu mu taxawee aw wala baada zaalika gannaaw bu mu toogee baada zaalika googu bu mu toogee la aw yeddu xulaa wala moom mu dugg naafile ga xaayiman di taxaw waaye yajlisa mu toog baada zalika gannaaw bu mu taxawee dégg boo boo zalika gannaaw boo waxee gannaaw loolu kay mën ngaa jaxasoo bi mu waxee baada zalika bu mu taxawee ak baada zalika gannaaw mu toogee da ngay comprendre ñaar yooyu rek nga boo ko waxee rek masala mi day ñëwal boppam dégg nga xam ne dafa dugg ci naafile bi ni yéene xiyaam yi yéene taxaw fiyaa ci moom bu dee dugg ci naafile gi da ngaa yéene taxaw kon fa yam tane on dana ko tere julun suwo toraayam baada zalika gannaaw yéene taxaw wa bu firi mi metti rek masala mi leer côté bob mom bu firi mi di metti rek masala mi day ñëwal bop wa lu mu wax daf ne wéedu gi nga xamné dana yaq julli man nga taxaw normal yow nga den ak way waay wéedu ko hmm? wala nga wéedu ci mir bi léegi yow bu ñu leeroon ne tey waji bu la mbason rek nga ne mbëpp ci suuf sa julli gi yàqu na donte waji mbassul la de nga sa yaram bi tek ko kawam ah, wala jël nga sa yaram bi tek ko ci mir bi way leer ñu ne tay bu mir bi daano nga ànd ak moom ah donte mir bi daano wala donte waa ji mbasul la wala li nga wiru mbassul la xamal ni sa julli gi yàqu na leer na su fekke bu bu yow do daan masalan ko xawate sa mbag mel bu mbassam da ngay def ni rek taxawat yakul julli gi kon heure bo wéeloo ci dara ci julli mo leer la ni lii bu won yow mi nga top sa donte daanul sa julli yàqu li rek la wax waye su fekkante ni bu li nga wéedu noonu bu won yow do daan kon su boba loolu dañ kaa sib wéedu boobu hmm mune dara dagan nafile nga mana taxaw nafile dara daru la nga top dara jotu la nga top nafile waye nak su boba ki nga xam nak mom dafa taxaw luñ ko don fay buñ ko don fay sans yow mi toog cinquante lañ lay fay yow mi toog taman a taxaw laa wax de yow mi toog taman mën a taxaw neeral na baax na ci naafile boo ko defee baax na waaye man mi nga xamante ni man naa taxaw naafile ma taxaw man bu ñu ma fayee cent yow cinquante lañ lay wax dégg de nee na dana dagan nga dugg ci naafile commencé naafile toog dem ba si kanam nga ne xaaral ma jóg yeggali wala nga commencé naafile taxaw dem ba si kanam toog lépp mën naa nekk. waaw man ngaa commencé toog ba si kanam nga jug man ngaa commencé taxaw jug ba si kanam ba toog comme ni koy gisee ci si naafila yi weeru koor yi gis ñenn ñi xam naa tayal bokk na ci nag tayel bokk na ci de waaw tayal bokk na ci de waaye lay koor méttiwul métti googu waaw xanaa lu mu gàtt gàtt du man 20 minutes wala 15 minutes bokk ah loolu man nga koo ñàkk a toog man nga man nga koo ñàkk a taxaw xanaa nga yore ay feebaru tànk waaye bu dee wér nga dara dalu la wax dëgg na diir bi ñuy la man man nga koo taxaw diir bi ñuy naafila moom waye ah, waaye na nak dara ne si man nga taxaw ba ci kanam nga tok wala nga tok ba ci kanam nga taxaw yëpp dagan na lu lu nga xamne ne bi ngay fi naafile da nga yini won ne da ngay taxaw naafile comme ya yini won taxaw naafile kon su baba duñ la permettre nga tok da dajee wax continue ci taxaway gi bu di xamoo ben ngànt waye bo yini won taxaw dem ba ci kanam sa tànk yi meuna to taxaw nga tok ba dara ne dem ma bamtu la firim ñu dem sëriñ bi nee na walis ci daa du wéeru àll si wéeru gi nga xam ne tabtulu dana yàq bii ci moom salaatul xaajiri julee ci man alaa tarki ci bàyyi ko booba moom àll si mooy wéeru gu nga xam ne yeskutu dana daanu moom borom bi suquuti yi sax daanug lam wala nga ne dana rot bi suquuti yi te rotok lam wéeru waaye bu kaana bu nekkee laa yeskutu du rot wala du daanu bi suquuti yi sa rotok lam wéeru wala sax daanug lam wéeru fawu mu weedu gogu makrum dañ ka sib de mu ne wa amaan nafilu du dal nafilu moom fa yee juusu dana dagan lil qadir ñeel ki man alal qiyamah ja taxaw ani saliya mu julli ko jaari set di tok waye wala wu ñeel nako nifu ajri qaimin gen walu fayu ki taxaw ba day waye juusu dana dagan an yeb qulaha mu dugg sa nafilu ga jaari sa di tok waye qum mu jóg baada zalika ganaw ganaw bu toge aw yu duqulaha wala boobu mu dugg naafile ko xaay man di taxaw waaye ni damu toog baada saalika gannaaw bu mu taxawee ilaan yu duqulaha lut nga xam ne dafa dugg sa naafile ko bi niyetul xiyaam yi yéene taxaw fiyaa ci moom kon fa yam taniho dana ko tere julusu ak toog baada baada saalika gannaaw bu mu yéenee taxaw kon su boobaa duñ ko permettre mu toog kon foofu la bunt bi yem ñu yem ko ba suba incha allah